wajalilaahi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat rahmatullaahi wa barakaatuhu ñu ngi yëkkatee kàddu ci tur sunu kilifa sunu jëwriñ sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi sëriñ Habibu ak waa Touba ca kanam ñu ngi lay nuyu te di la siyaare di jégglu it kàddu yi ñuy yëkkati fi sa kanam ndax dëppoowut ak li nu jàngal waaye day ndigal rek lu nu suñta bañ a jëfe ginnaaw bu nu la siyaare di ñaan sun borom mu yàggal la fi lool suñ kanam te may ak wér liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa ni nga ko bëggee yàlla na la suñ borom kàttanal ba nga defee ko noona ci bàkkib sëriñ bi li nga bëggul lu dul moom ci kaw suuf muy ngërëmu sëñ Tuubaa itam doonte am nañ yaqin ci am nga ko waaye du doy ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi wax na ne am na ngërëmu yàlla doog a dem te te daa mel ne boobu lay doo ko tàmbali kon yow itam gannaaw suñu borom daa yëmut fenn sëriñ Tuubaa yëmut fenn ci suñu borom yow yàlla boo yem fenn sëriñ Tuubaa kon ñu ngi sant bu baax Mbàkke di wax ne mbooloom Tuubaa ci kanam ñii nag tey ci njiitu sëriñ Habibu li leen indi fi mooy siyaare si la yeesal si seenug laxasaay fedd si seenug jaayante seen diggante sëriñ Tuubaa te nga bi te mbooloo mi ba mu booba ngay jéewuñu Cheikh Sidil Muxtaar ñu ñëw wax la ko nga yëkkati woon cay kàddu yu soññee waxoon ne am naa ci yaakaar te yaakaar jooju alhamdulilah man suñu boobam dëggal na ko ba agsi fii itam lu yomb lu gaaw la waaye nag daa laaj pësteef ci ñu koy taxaw soññee ci soññee yoo xam ne ñëpp gisoon nañ ko te doon ca dox mel ne it ñu ngi ci doon dox ba agsi fii ba tey jotaay bi nga toog jataay bi sëriñ ba ñëwee da ngaa wax de maa ngi sedd sama laxasaay waaye nga wax ne yaakaar laaj amoon waaye am naa ci yaqiin loolu nag buñ ci amee dégg-dégg ñun ñu ne ci kanam mbooloo mi loolu war nañoo soññi war naa tax wawuñoo taxaw wawuñoo geesu wawuñoo yàlla man suñu laxasaay te war na noo am pas-pas ak yéeg-yéeg bu toll ne lépp loo xamante ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ci dëkk bi ñu gëm ne nun noo ko wax def te loolu mooy suñu pas-pas mooy suñu yéene kon mbooloo mi na nga xam ne la leen taxoon a jug muy bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi daal loolu rek ca lañ ne ba tey ginnaaw dañoo liggéey ba am at jeex nag 2020 bi jeex na ñu dugg 2021 ñëw di yeesluwaat di la leeralal liggéey bi ñu liggéey ci 2020 bi di di naat itam di digluwaat ndigal di la wax it naalaat naalaat nañ fas yéene gën a feddaliwaat suñu laxasaay ci li li àggagutoon lépp ñu àggale ko yi nga xam ne itam fas nañ ko yéene sumb it ci at mi ñu sumb ko di ñaan nga defal nu ci ndimbal ci bàkki sëñ bi ba nañ ko yéene nu defee ko ne Mbàkke na ngi ziyaare bu baax te fet li suñu jaayanteeg sëriñ bi di ñaan nga yàgg fi loolu te wér ci liggéey yi nga xam ne jotoon nañ koo def daaw ak daaw jéeg lu mel ne bâtiment université bi moom jàpp nañ ne eh, li ciy des dana noppi ren incha allah ba daanu jébbale caabi yi xayma nañ ne xëy na bu ci defaate ñaar téeméeri million ak juróom fukk dana mat lu jëm ci daaray alxuraan yi daaw jàppale woon nañ ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent jàngalekat alxuraan yi tamit ab lim ci ñoom àndoon nañoo ñoom ci eh, dawra takwin ya boo xam ne dañ doon dollanteeg ñoom xam-xam ci wàllu yor daara ak taxaw ay donga lu jëm ci wàllu wér yaram moom naka jekk noo nga ci woon bu weesoo bërëb bu fajukaay bu lansaar ba ñett ñett noppi woon na ci benn ba moom tàmbali naa dox bañ defoon lansaar yeneen ñaar bu nekk boobadeel ak bu kër gol yooyu mooy yi war ubbi fi mu ne nii am na yeneen ñett nag yoo xam ne moom mi ngi dana noppi ci at mi bu ci àllandee mooy ndaaram ndaam daalu alimul xabiir Touba Njaareem ak daalu xadim ñett yooyu moom daanaka léegi ñu noppi fi mu ne ren ci jaayante bi nga xam ne amaloon nañ ko ci defar defarum yoon bi waaj màggal gi waaj a tàmbali jotoon nañ cee defar juróomi kilomètres yoo xam ay tali yooyu moom noppi na ba fi mu ne oto yaa ngi daw euh, ci biir tali yi nag da cee am diggante yoo xam ne ak ci biir dëkk bi lu mel ne fii ci wetu tokkoor bi lu mel ne ca euh, wetu arrondissement lu mel ne ca yoonu Touba Njaareem wa jëm fa ñuy wax quartier Mbay Wadd ak Kër Baylaat yoonu njurul diggante yooyu day ay bëre ndox yuy taa yooyu nag lañ fay def moom béton lañ koy defaree du doon du tali yooyu lañ ci jot a defar toll na ci Euh, ñeenti téeméer ak ñeent ñaari junni ak euh, ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ci ay mètre carré yoo xam ne defar nañ ko ba noppi bu dee canal ak i tuyaux yi nga xam ne ci la ndoxum taw yi di jaare jot nañ cee defar lu toll ak ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ci ay mètre ci diggante ci yooyu nga xam ne taataay ndox yi fi la fi la gënoon a fese lu mel ne euh, ci wetu arrondissement bu ndam def nañ fa lu mel ne foos boo xam ne ñaari pompe yu mag lañ def ci biir ngir ndox yi bàyyi ko ci arrondissement ba li bàyyi ko buntu kër sëñ Touba romb gendarmerie bi ak li bàyyi ko Touba Njaareem ndox yooyu foofu lay dajee pomp bi pomp ko nag dugal ko ci canal bi den ak wetu kër sëñ Modou Kara ci wetu euh, rond point bi bu ko defee mu daal di dugg ci réseau bi daal di jàll foofu nag danañ fi jaaree gërëmaale waa ONAS ndax ñoom jàppale nañ ñu lool ci liggéey bi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réseau assainissement bi ba nga xam ne li Touba ca kanam di liggéey lépp bi mu ñëwee koy fa ko fa la ko def dem bërki démb seen directeur bi ñëw na fi wër na liggéey yëpp sant ci gërëm ci wane ne ànd gi nu ànd ak ñoom jaar na yoon te liggéey yi ñu a def yu yu mat rafetlu la. daaw ci eh, ci màggal gi jub si tamit am na luy tollu juróom fukki mbedd ak benn mbedd yu mag a mag ak yu yam ak yu sew yoo xam ne sëkk nañ ko maasale ko defar ko ba yoon wa bañ ma ba mën a jàppandi. loolu mooy li aju ci defarum yoon yi nga xam ne jot nañ ko liggéey daaw lu jëm ci wàllu leeral te mooy lamp yi ñuy jënd daaw indi woon na ñetti junniy lamp yoo xam ne Euh, euh, installé nañ ko ci quartier yi wër dëkk bi yëpp ci biir ci biir corniche bi ak ci bitti corniche bi ren ji waajalaat nañ ci yeneen juróomi junni yoo xam ne fas yéene nañoo bala ñoo màggal bu ci yàlla àndee ñu indi ko installé ko lu jëm ci wàllu social bi nga xam ne moom la sëñ Mourtala jiite daaw li ñu dimbali ci ay nit jàppalanteeg ñoom ñii ci ay ordonnance ñii ci ay dëkkuwaay yooyu matoon na ñeenti junni nit ak ñeenti téeméer lampi corniche ba tamit poto yi nañ ko ba defar nañ ko bitim réew ba ma nga ma ma nga yoon wi ñëw câble yi ñu war Euh, am na ñoo koy gëstu fi mu ne bu ñu noppee dañ koy jox Senelec bu ñu ko validé ñu jënd câble yi daal di jublu ci liggéey bi ndax jëmmi lamp yi moom mi ngi fi woon ba noppi assainissement bi ñu a def moom it euh, euh, ingénieur yaa ngi koy gëstu li ko war a defar lépp noppi ne dañuy xaar gëstu bi noppi rek ñu daat koy sangu moom it daat koy yóbbaale lu jëm ci wàllu ndox mi daaw ci ja waxtu wii rek daa tolloog forage yu bari paanoon ci dëkk bi tombeek tamit ci jamonoy mbas mi couvre feu amoon ba nga xam ne rooti guddi du woon yomb pompe ya paanoon yëpp Touba ca kanam jëndoon na ko ca jamono jooja quartier yu baree bari tamit xëcc nañ ndox yóbbu fa lii ci tënk mooy li nga xam ne mooy mooy mooy lenn ci liggéeyu liggéeyu liggéeyu daaw bi. ñu leen di sant leen gërëm bu baax baax baax di taxaw bi ak doxin ci njëlbéen nga waxoon naa ne bu ab gàllankoor amut da ngeen àgg ci dëkk bi lépp mën ngeen ko yor moo doon sama moom laa gisoon te ak ngeen foo xam ne benn rek ngeen ja ngeen jéggi dem te du leen du leen taxaw. Pastef bi leen taxoon a jóg bu ca dara soppiku Pastef nanguwul yox yox yi bu ca dara soppiku déet yow yow laay waxal ndax ñoom ñëpp nañu xool si yow tey déglu yow kon na nga xam ne yow alhamdulilah rabbil alamin jiitu gi xel dal na ci ànd si rawatina kilifa day seet boppam ci biir mbooloo mi loo xam ne mënu ko mën a lu ko mbooloo mënu mënu ko ci biir mbooloo mi ci wàllu xelam ci wàllu jikkoom mu yaakaar ne loolu moom am na ci ngànt il faut que mu am koo ko mën a loolu ku ko féete ca loola ab laat mi mën na loolu góorgóorlu leen rek bu ngeen góorgóorlu góorgóorlu ci waxtu bii moom dem rek te yaakaar naa ne li ngeen weesoo gis ngeen ni mu demee fa tabaarakallaahu lu bett ñëpp la lu koy njort la lépp di di di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëggu dëggu ci yéen sëñ Tuubaa nekk ci yéen ngeen ngeen ngeen jóg ngir sëñ Tuubaa loolu li ñu weesu lépp leer na taal bi yëpp nangu nañ ko xam ñëpp xam nañ ko man nag ma ci njël bi waxoon naa leen ko ma li ànd ak yéen man damay dama dama damay maag ma dama damay wut fukki murid sadex yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen muy muy muy fukk maa maa ngi ñoom bi nga xamee ne yàlla dogal na liggéey bii dama war dama war sama yëpp sama lépp dama ko sama léppi sama léppi sëriñ bi dama ko war a yokk jëm ca kaw loolu moo tax ma ne leen kon def naa ko téeméer waaw def naa ko téeméer juróom-ñeent fukki murid saade ak juróom-ñeent ma fukkee leen mu ngi nii. teg maa ngi noyyi rek maa ngi noyyi rek te yaakaar naa ne maa ngi ñaan am ñu ma ca wutu waaw <laughs> waaw kon sa sa yaay bi mu mu ngoog bu mu ngoog noonu dong la demee. ba bokki taalibe yi yëpp dégg yi yi bokk yi bokk ci liggéey bi ak ci bokkul na ñëpp dégg waaw ne ko ñëpp dégg waaw noonu dong la demee kon noonu rek la demee waaw eh, eh, xanaa ñaan nag ci baaxu sëñ Tuubaa san borom leen a gar nag tawfeex sëñ rek ndax tawfeex lépp lépp lépp lépp tawfeex sëñ Tuubaa la waaye nag ñu gën leen ko ñu ñu ñu gën a yokk waaw ñu gën a yokk te tawfeex sëñ Tuubaa sëñ ci yéen ba ngeen mën a dem ni ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàttanu leen ngërëmam waaw ngeen mën a dem na ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàttanu leen ngërëmam kenn ku ne xam nga fa nga toll ci lu baax waaye fa nga toll ci lu baax nag loo ca weesu rek geesul rek weesu xeeb ko mel ne ku door a jugaat ko nga tàmbali loo ca weesu rek xeeb ci li nga jëm waaw ah, yàlla yàlla yombul yàlla yombul yàlla yombul <laughs> waaw bi moom mooy kenn ku ne boo buñu jaagee nga def la nga man rek la nga la nga mën sa kem kattan bu pëstee waaw it jëmat sëkk loo ca man loo ca man rek ca ca ca nga xam ne yaa ngi koy def te xam da nga ko dimbalee nga bëgg a dimbale miskin yi néeg ji doole yi ndax loolu kon mooy social bi kon nag loolu moom ñi ñëpp dégg lu ca waay man na koy def bu mu xeeb bu mu yéem waaw bu mu xeeb bu mu yéem waaw <laughs> mana mana mana mos naa am bis moo xam fii ne la ay silmaxa lañ silmaxa nag bu nekkee ci am néeg Edam eh, nekk ci nii ba saafara nekk pourcentage nekk ci xamewu ko kuñ dimbali wu daal yàlla dimbali ngi Sëñ Tuubaa rek waaw liggéey bi dañ ko si waaw waaw dëggal Mbàkke waaw waaw. bu ñu yëgee bu ñu yëgul moo ñuy gindi loolu bu ci tiit dara moom tawfeex sëñ moo ñuy gindi waaw tawfeex sëñ mooy gindi sëñ sëñ bi tawfeexi boromam la. taw. wéy ji di fi nekkoon ku neen ko topp. ba ba mu gërëm la sama mag yi fi nekkoon nga ñoom gën la ba gërëm la lii nag kenn kenn neexuloo ci kenn ñëpp dañu war a toog bi ñu ay gor fas ñuy jox suñu bopp suñu lépp ngir suñu Tuubaa duñu la war mukk ci àdduna Mbàkke duñu la fa kasal ci àdduna bàyyi leen suñu bopp bàyyi la sa bopp bàyyi leen suñu bopp bàyyi la sa bopp ñaan lañu rek bu ñu seytaan am yoon waaw waaw ku demul kay noppi naa ku dem ma dem ku demul ma dem loolu laa bëgg de jàmm bu ne sañ naa wax lu mu bëgg xamu ci sama bopp dara mënul lu sama bopp dara doonu ma ci sama bopp dara waaye nag li ma bëgg moom moom ma mën a li ma bëgg rek moom dem ma dem ko dem ma dem ah kay dañuy ànd kon dañuy ànd wajalilaahi maskani tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat